li ñu war a réussir ñu réussir ko nekk ñu bàyyi yàqalante bi oui kilifa oui ci euh, kaawu Azer beeg coow li ko wër ba fi mu ci yegg si ñuy annoncé ay plainte ci Touba <laughs> lan la la <laughs> mais xam nga la j'aime bien Momo parce que euh, peut-être benn instant di nga foog ni yow rek ay comprendre mais boo toogee ba gis Momo wala nga dugg ci internet bi gis comment les Sénégalais ils ont compris non sa xol dafay sedd guy danga naan bàyyi ma dem toogaat. kon mooy ni élection yi du yomb kon. du yomb ci ñan. ci yéen. ah bu dee. kaa la leen de élection yi moom élection yi moom kaa wax la leen. élection yi xanaa kay def lu musul am. assurer cent cinquante voire cent cinquante cinq députés. mais élection yi du élection Ousmane Sonko de. Ah. déedéet. élection yi élection wu sénégalais yi la et quand je dis sénégalais mooy la majorité des sénégalais qui ont subi mais une injustice énorme ci les douze ans de Macky Sall ou les vingt quatre ans de PDS la majorité des sénégalais yi nga xamante ni dañu dund dëgg-dëgg injustice ci vingt quatre ans yi wala ci douze ans yu Macky Sall yi gën a tar ñoom ñoo moom élection yi ñoom ñooy wàcc dem baataral seen bopp campagne dañu waroon wax Sonko demal nga toog noppaliku ñun dinañ wàcc battre campagne dinañ dem charge urne ba mu fees dell pour wan leen ni leen rendi bii ñu tàmbali hmm. duñu ñu teggi suñu loxo tànk bopp baat bi tàqalikoowul jëfuru gi yëpp manipulation gi yëpp sos geeg yàqalaate gi yëpp c'est juste pour distraire. boo gisee moom c'est juste pour moom Amadou ñu waroo da ngay ndax nee na Fatouma man ñooñu lépp lépp lu bon lu leen dal damay fanaane sant yàlla ba fajar parce que li ko ndaw si wax ci biir avion bi lu tax nga rey suñu doom yi lu tax nga rey sénégalais yi Macky Sall Macky Sall bu taxaw fii Sénégal amul bip amul GIGN bu ko garde man kilifa su ma mënee jot ci moom dinaa ko dóor arrêt. asi eh? ah asi ah, yow ah, wax loolu yow. non dégg loolu man sénégalais bi bokk sa waay Macky a fait Macky fa yow tam Macky a fait couler de de de beaucoup wax loolu. bu ko wax ma man gaawul ñàkkuma ci suma rakk mais suma xarit boo xamante ni rakkam dafa nekkoon suma waay rakkam presque man la gënoon a bokkal daf ci faatu Macky dafa bokk ci les les les les les ñi assass li ñuy daf ci bokk. donc. pour yow du ñëw ci réew mais je me mets à la place de tous les gens yi nga xamante ni dañoo rey seen rakk walla seen doom walla seen jarbaat walla seen moo xam tey jii lan moo tax ku rey ñu daw gaaw yóbbu ko kaso ci saa si def nañ ko mandat de dépôt pour bañ ñu rey ko ci mbedd mi. parce que ku rey sa doom soo jotee ci moom da nga koy da koy da nga koy def ni mu def sa doom. tu vois un donc foofu laay waxee quoi. en tout cas ku neex fas la ku daw wërsëg la hmm. pendant des années yàlla def ko suturaal di ko teral waaye balaa muy gëm yàlla génn na ci moom rocciku na ci moom bàyyi nag ak seytaan rek na Macky sàll yegg si fii na day battre campagne. pour du ko def. du du li ci avion bi euh, loolu loolu loolu annonce la. Ah. li xew ci avion bi annonce la. Macky bu mën a dem ba toog avion sénégalais di am ci accès ci moom romb ko fa ne ko lu yow Macky sàll la moo tax ngay rey suñu doom quand il était président loolu dafa mënoon a am maintenant il na l'est plus il est un citoyen comme kilifa amul ay dañ koy traité ancien président ex président amul de Abdou juuf ne woon na Senghor bi ko sengoor jëlee jox ko leng yépp jox ko ay instruction ne ko lii bëgg naa nga def ko lii bëgg naa nga def ko lu mu wax Abdou ne ko waaw bi mu ne ñolmet dem yoonam Senghor il est resté trois mois mënul jot Abdou Diouf téléphone bi mu jotee Abdou Diouf téléphone commencé ah c'est quoi ces histoires dugg na fii mu ne ko baisse d'un ton tu parles avec le président de la République Senghor ne eh mu ne ko oui baisse d'un ton tu parles avec le président de la République c'est quoi ton problème qu'est-ce que je peux faire pour vous soppeeku mu commencé naan ko waaw parce que yi ñu waxante woon mu ne ko yi ñu waxante woon ya nga waxoon la ya nga bëggoon la mm-hmm. mais ci li Sénégal bëgg ak lii yoon ci laay nekk président de la république moo lay soxla jot ko du foo ko soxlaa rek curpi curpi jot ko un président mooy ki nekk ci exercice de fonction nekk président ñu koy woowee waaye ex président ak yooyu amul taxawul bés bu fi Macky Sall ñëwee. Mm. avant ñu ñu ñu naan remporté nañ euh, législative yi. Hmm. ci lay rendre compte ci la sénégalais yi di régler seen problème ak moom parce que il nous a tué hein plus d'une centaine liñ fi taxaw yépp di wax ay soixante dix huit milliards armement wak jàppal bàyyi ay problème mu Azer rek ay problème mu euh, euh, canal Olympia ñu jaay boloo rek. Ah. yooyu yépp Macky sàll la. Macky sàll ak ñi ngeen di wax ni ñoom i Racine Seck euh, bokku Macky ñoo ñu nga xamante ni ñoo nekkoon di def musiba ci réew mi wax na ko léegi ñenn ci mag ñu bon ñi parce que yi Pastef ñu baax lañ ñu ma naw lañ mais dafa mel ni Ahmed Khalifa léegi yi Pastef la bokk ah, wala. ngi laajte carte bàyyi leen sama maire bi nag. bàyyi leen bi. xam nga lu nekk ci xam nga lu neex ci Pastef xam nga ndeysaan Ousmane Sonko bi mu ñëwee euh, moo tax dëggu dëggu rek a dëggu rek a wóor. Mm-hmm. te bëgg sa réew rek a wóor. bi mu ñëwee gis kaay yi kii naan waaw kaay leen ñu nekk ñun ñooy lee démocrates ñi ne eh non ñun ñooy les socialist ñii ne eh ñun ñooy front xawma pour lan ak lan mu ñëw ne leen ñu bëgg seen réew ana ñu bëgg seen réew ndeysaan sang bu tedd ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee dafa ne ah am naa xéwal pour yéen waa Màkka ne ko luy xewal gi mu ne ana ñi na ma jëm ca yàlla ana ñi bëgg a bokk ci diine ju baax ji la majorité siisu une minorité bi yàlla baaxal ñu teel a dégg ko ànd ak moom anamu tey waxuñ la màkka waaye fépp foo dem ci àdduna bi mission wam boobu wéy na dëggay dëgg hmm. Pastef li ci neex mooy munoon nga nekk ab màjjoo sax waaye boo boo boo boo demee ba gis ba yàlla nar la dimbali nga gis ni lii mooy dëgg da ngay tuub boo tuubee nga ñëw gars yi jàngal la ponk yi ponk yi mooy jub jubal jubbanti fii nous sommes des soldats de la république en veille sur le contribuable le denier public et on veille à ce que y aura plus de détournement dans ce pays. D'accord. maintenant ñoom nag bi ñu tàntee lu ne. xam ni mënul nekk ñu gis ni sénégalais yi dafa am lu ñu namoon lu ñu yàgg a toog di ko rêvé bëgg ko mooy njiit yoo xamante ni même buñ ñu waxagul ni Sénégal dafay développé day mel ni France mais au moins njiit yu teg premier jalon et les premiers jalons c'est quoi xaalisu Sénégal buñ ko sàccul sàmm ko dina dem fi mu war a dem ki sénégalais yi dinañ ci jot dinañ ci gis seen bopp ah. xaalisu Sénégal buñ ko sàccul seetaanuñu ku ko sàcc on va plus parler de ces de de ay ay jël na gaal ay lii a ngi jar lii ay lii yokku na ay lii ak lii loolu nag j'appelle tous les Sénégalais ñu adhérer ci loolu le plus difficile am ngeen ko mooy vous avez des dirigeants yoo xamante ni ils sont désintéressés bugguñu la contribuable seexlu nañu la contribuable duñu laal le contribuable te fas yéene wu ñoo laal le contribuable te duñu may kenn kanam gu mu laalee nag le contribuable sénégalais donc on njaaraama yàlla yàlla guddal seen fan préparez-vous gën leen a wàcc na sous-estimez pas l'ennemi donte waxuma la il boite il est à terre mais il faut continuer et on va l'achever nañ leen leen doggali tàqali bopp beeg baat bi mu jeex takk une bonne fois pour toutes et on enterre le système pour de bon. Ah. <laughs> oui Salma. coowal ASER beeg plainte yi ci jip lu ci sa jàngat. Euh, moi je trouve que loolu yëpp diverti diversion la. Ah ah. diversion la parce que Passe il faut rappeler que.